ñoo ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bii di Buzz d HD chaîne YouTube bi xew ci jamono bi leen di jox xibaar yu weex te ca tàng tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. mu woo ñu jokkoo monsieur le mu invité ñu daara suñu message xam ne. liste bu baax bi nga xamante ne si moom la président Ousmane Sonko joxe ndigal pour ñu wote ci mooy liste Abdoulaye Wade bi fii ci département bi mais nag ñun suñu message dafay laaj Sénégal gépp lay laal parce que dañuy wax mboolem fu Serigne Daara nekk parce que suñu taxawaay bii nii Serigne Daara fii ci Touba lañ nekk mais dafa yaatu ci Sénégal gépp moo tax message bi ñuy laajte fépp ci da ci Sénégal lay laaj li ko waral mooy Macky Sall dañoo gis ne dafa toroxal daara biir mu nekk Sénégal ndongo di leen delloo ci lu amul benn di wax ay corona wala ay ñàkk fayda ngir rek defee ko comme benn occasion boo xam dafa ñu dal ci kawam. Buzz 221 HD bi xew ci jamono bi leen di jox xibaar yu wér te tàng. ñu occasion ci profité ci occasion bi comme ni nga ko mën a waxee xeex Macky ko fi mooy du a wax sax mbiru troisième mandat buñ ko gañee kon loolu def na ko kon sëriñ daara a nekk ak parents ndongo ñaan na ñëpp maase woote liste bi nga xam ne mooy intercoalition wàllu ay yeewi fuñ mën a nekk rawatina ci département Mbacké bii ñu woote liste bi nga xam ne ci la Abdoulaye Wade nekk kon sëriñ daara yëpp ñi ngi naan seede saa boobu mu jëm ci ñoom rawatina ñi nga xam dañoo sopp daara Cheikh Bachir laa fi àndal bokk ci ñi nga xamante si ci Morago la. sëñ Mame Thierno Mbacké ak sëñ Mañas ak sëñ sëñ xam moo ñu fi invité kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar bi YouTube bi xew ci jamono bi leen di jox xibaar yu wér te wóor ca tàng. presse nga def ñu tuuti à comptoir rek ñu préparé